les autorités de Fandène ñu ngi nii les populations de Kër Kër Issa ànd la commune Thiès Nord pour que li nga xam ni moom la fi bëgg a def ñu xamal ne ko du fi nekk lu ko mën jaral pour mu mu nekk fi dina ko jaral population yi pour mu jóge fa waaw amul lenn depuis bañ ko defee gis nañu ay agitateurs ñi nga xam ni ñu ngi leen di jéem ñu ngi leen di tuur xaalis pour ñuy waxal au nom du promoteur loolu mënul jàll parce que defuñu politique pour du sacrifier la vie des gens dañoo des politiques pour la protection et la sécurité des biens de nos populations loolu duñ ko caaxaane bu fekkoon leneen la doon def sax mun nañu wax mais li mu bëgg def ni munu ci am am benn ndimbal pour que mu mun fee toog donc yooyu moo doon kàddu yi du leen gërëm du sant bu baax léegi damay jox kàddu gi le premier au au maire de Fandé, donc parce que xam naa le pre euh, tey le premier adjoint du maire c'est le maire donc tay mom moy mo yoré les pouvoirs de la commune de Fanden parce que notre collègue maire Augustin ministre des forces de l'ordre il est très pris et que tay son premier adjoint tay bu fi togué mom mo fi et aussi de remercier bu au passage le ministre parce que tay euh, c'est un ministre de la République mais xamna tay la population yi luñu là soxla munu ko munu fa nek du ko donc tay motax mo envoyé cette forte délégation xamna ñun ñoo de xex bi te loolu moo tax du remercier bu baax aussi le premier adjoint Ndoye Thiaw du ko xam ni daal c'est un début d'un grand combat pour l'arrêt immédiat de toute activité de fonderie dans dans cette zone là merci beaucoup. jërëjëf mbooloo mi maa ngi nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant yaakaar naa li Lamine wax sa doyoon na xëy na waxaat ndax li wax. ah teg nañ ci bët bi ñu yëkkatee cheminée bi yaakaar naa samedi lañ ko yëkkati dimanche Augustin yónnee fa man maak Martial ak euh, Ivan mi ñoo àndoon bi ñu demee dañ koo laaj ndax am nga autorisation wax nañ tamit booy liggéey ci béréb dangaa war a afficher ci bunt bi walla ci télé bi ku romb xam ne lii di nga fay liggéey mais defoo ko ah mu xamal ñu tamit nee na foofu la dëkk këram ma nga fa loolu lépp wóoraguñu ndax ci bureau bi lañ ko fekk ñu wax ak moom la ñu ko wax mu jox na quelques documents pour ñu jox ko Augustin bi ñu ko joxee Augustin nag loolu doyu ko ndax gisuñu ci autorisation autorisation nag moo waroon a jiitu déggoon nañ ci Fandène la bokk déggaat bokkul ci Fandène mais bi ñu demee à la ma interpellé ñu naan Fondé bi il paraît que ci Fandène la bokk man leen bokkul ci Fandène Thiès Nord la bokk Lamine jàll ci mairie la bokk ah Lamine yaakaar naa wax ji frank laayu na ndax avant nga ñuy tàllal loxo boobu boobu dëkk nañu loxo bu yàgg ndax dañu ne la santé avant tout balaa ngaa mën liggéey dangay wér ku wér nag nu muy liggéeyee te Fondé yi li ñu ci xam yaakaar naa bari na ndax gis nañu suñu maam yi wala suñu mag yi daan defar cin ci Thiès foofu moom kenn mënu faa dëkk mu ñëw ba ca kaw tali bi xam nga fàndeen foofu lay romb te ngelaw li kenn mënu koo téye ngelaw kenn mënu koo téye kenn xamul ni noor lay jëm wala sud wala loolu il faut mu wesaaroo wesaaroo nag kenn xamul fu muy àppee ji mën naa dem fii ba Dakar kon nag bu ñu défendre dañuy bokk ànd bokk xeex bi jóg di dóorandoo waxtaan nit mul ñàkk il faut ñu dem euh, gouvernance ak euh, sous préfecture nu toog préfecture ñu wax ak ñoom ndax ñoom yaakaar naa ñoo ñuy si ñooy suñu kilifa fii loolu daal yaakaar naa bu ñu ko defee duñu juum ndax yaakaar naa li mu wax lu lu ma ko jarul amul dem na fii ba Chine mhm. bu demee fii ba Chine mën nañu faa weesu ndax alalu kenn yaakaar naa alalu mbooloo moo ko gën mhm. dugal fa sama doom mu jëlee fa feebar bàyyi ko mu dem ci gaal yi sax moo ko tane ndax mën naa jàll gaal yi yàlla mën naa dem mu rëcc mais fii wóor na la feebar am na fa feebar am na du ci yem ci kenn liggéey fa ak ñàkk fa liggéey yëpp day tasaaroo loolu daal yaakaar naa mooy suñu kàddu fu ngeen taxawee mairie Fandène dina fa taxaw fu ngeen woote bu sobee yàlla ñoo fay jiitu ndax yaakaar naa Ivan dafa ma ne woon 4 euh, heures. Hmm. mais yaakaar naa 3 heures waaw ñoo fi jiitu <laughs> loolu daal bu dee combat kese kese. Hmm. ñun taxaw nañu pour ñu ànd xeex ko. mu joge fi ba une bon fa pour tout loolu daal yaakaar naa. mooy kàddu Augustin mooy kàddu waa Fandine euh, ba ci kanam. merci beaucoup.